merci beaucoup félicitations à vous ah, ah vraiment the king ah, kii de wax dëgg neex yàlla yow la nduru lii miin nga ko lii sa yëf la te man na mën naa toog ci ginnaaw. waaw vert bi sa couleur la. kii ay ah. bagages am yëpp nit kër ga nga bàyyi. yor nga taqaay yor nga solo bi yor nga lépp yor nga jantal bi lu xeere ñu noonu. the king of the. lii sa yëf la rool sa rool yaa ilaha illallah sama xel dem na ca mbuur fa nga doon joué barki démb rool ah, waaye bii mooy gaynde gu mag gi bari Washington DC kaana bu mag a mag a ngi nii. bu baax baax ba jàll baax mi ngi noonu. ah ah. waxtaan leen léegi yaram bu tàng <laughs> oh. Oh. kaana bu mag baa ngi noonu du ay caxaan. bajaan fële la wax yem. karaj mu <laughs> tundoori ma te fure fure kaaram mag baa ngi noonu. merci beaucoup. félicitations à vous ah, ah non non vraiment macha allah macha allah yal na yàlla def jàmm. amiin amiin vraiment vraiment vraiment c'est c'est c'est. yaa. non the king ah kii de wax dëgg neex yàlla yow la nduru lii miin nga ko lii sa yëf la te man namu naa toog ci ginnaaw. waaw vert bi sa couleur la kii ay bagage am yëpp mu kër ga nga bàyyi yor nga taqaay yor nga solo bi yor nga lépp yor nga jantal bi lu xeere ngi noonu the king of the lii sa yëf la Rolls Royce laa ilaha illallah sama xel dem na ca mbuur fa nga doon joué barki dem Rolls waaye bii mooy gaynde gu mag gi bari Washington DC kaana bu mag a mag a ngi nii du baax baax ba jàll baax mi ngi noonu ah. ah waxtaan leen léegi yaram bu tàng de. oh oh the king kaana bu mag baa ngi noonu du ay caxaan bajaan télé papier fii la wax yem karaj mu damm tu ma te fure fure kaana bu mag baa ngi noonu merci beaucoup. félicitations à vous ah. vraiment macha allah macha allah. yal na jàll def jàmm. amiin amiin. vraiment vraiment vraiment c'est c'est c'est. yaa. dama ah, kii de dëgg neex yàlla yow la nduru lii ko lii sa yëf la naa toog ci ginnaaw. waaw vert bi a couleur la kii ay bagage am yëpp mu ngi ga nga bàyyi yor nga taqaay yor nga solo bi yor nga lépp yor nga jantal bi lu xeere a noonu the king of the lii sa yëf la Rolls Royce laa ilaha illallah sama xel dem na ca mbuur fa nga doon joué barki dem Rolls waaye bii mooy gaynde gu mag gi bari Washington DC kaana bu mag a mag a ngi nii waaw du baax baax ba jàll baax mi ngi noonu ah waxtaan leen léegi yaram bu tàng oh, oh! kaana bu mag baa ngi noonu du ay caxaan bajaan télé papier fii la wax yem karaj mu dam dañ ma te fure fure kaana bu mag baa ngi noonu yaa. dama woo king ah kii de wax dëgg neex yàlla yow la nduru lii miin nga ko lii sa yëf la te man namu naa toog ci ginnaaw. waaw vert bi sa couleur la kii ay bagage am yëpp mu ngi kër ga nga bàyyi yor nga taqaay yor nga solo bi yor nga lépp yor nga jantal bi lu xeere ngi noonu the king of the lii sa yëf la Rolls Royce laa ilaaha illallah sama xel dem na ca mbuur fa nga doon joué barki dem Rolls waaye bii mooy gaynde gu mag gi bari Washington DC kaana bu mag a mag a ngi nii du baax baax ba jàll baax mi ngi noonu ah. ah waxtaan leen léegi yaram bu tàng de oh oh the king of the kaana bu mag baa ngi noonu du ay caxaan bajaan télé papier fii la wax yem karaj mu damm tundóori ma te fure fure kaana bu mag baa ngi noonu merci beaucoup ah, ah, vraiment macha the king ah kii de wax dëgg neex yàlla yow la nduru lii miin nga ko lii sa yëf la te man namu naa toog ci ginnaaw waaw vert bi sa couleur la kii ay bagage am yëpp mu kër ga nga bàyyi yor nga taqaay yor nga solo bi yor nga lépp yor nga jantal bi lu xeere ngi noonu the king of the lii sa yëf la Rolls Royce laa ilaha illallah sama xel dem na ca mbuur fa nga doon joué barki dem Rolls waaye bii mooy gaynde gu mag gi bari Washington DC kaana bu mag a mag a ngi nii baax baax jàll baax mi ngi noonu ah. ah waxtaan leen léegi yaram dafa tàng oh oh the kaana bu mag baa ngi noonu du ay caxaan. bajaan télé papier fii la wax yem karaj mu damm tundóori ma te fure fure kaara bu mag baa ngi noonu